dal leen ak jàmm mbaa yéen a nga ca njiitu réew mi mekk sàll kañ jamono ji mu ngi sa saf sàpp ci yéenikaay yi niki tey yéenikaay bi di la mandat naan ñu inauguration wu grande mosquée bu Fatick njiitu réew mi Macky Sall ndax jamono ji dafay jéem a dribble ñii di waa Yewwi Askan Wi ak lu ci mënti doon moom moomee daal dinay dalal xel yi ci jamono joo xamante ni mi ngi daloo ab juma bu yees fële sa diwaanu Fatick yéenikaay bi di Walf Quotidien naan ñu njiitu réew mi Macky Sall kañ inauguration yóbbu ko fa woon wante mbiru politique moom moo ko fa yóbbu xaal xàllal ay nitam yoon lalal leen bam nooy nepp waaye itamit régle jafe-jafe yi nga xamante ne am na ci diggante ay nit yu nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar ci biir yéenikaay bi Seydou Thiam di ab enseignant fële sa université Cheikh Anta Diop naan ñu réalisation yi mënul tax ba nit ñi fàtte scandale yi nga xamante ni daal dinay am ci mim réew laas quotidien di ñëw ci njiitu réew mi Macky Sall mi daal di fësal ay daan yoo xamante ni fas yéene kaa gàll ci ndoddub ay nitam ñi nga xamante ni dañoo taxaw ngir amal ay liste parallèle ñoom ñooñee njiitu réew mi Macky Sall dina rëkk seen digg keneen koo xamante ni mënuñoo rëq ndiggam te moom moo dàq perturbé ci rang benn Bokk Yaakaar yi du kenn ku dul gorob njiitu réew mi Macky Sall di aadama fay moom moomee ani lan moo tax Adama Faye mënuñoo rëkk ndiggam yéenekaay bii di Le Témoin Quotidien mi ngi siy dellu si waat yéenekaay bi di L'Observateur naan daañu rëkkam duñ rëkk ak lum ci mënti doon local yi ñu dëgmal benn Bokk Yaakaar daal dinañu ñett milliards ak xaaj noonee mu doon ab budget boo xamante ni dañ ko jagleel seen campagne six millions pour cinq cent cinquante deux communes yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk ak quarante départements yi fukki millions ñu daal di koy génne jox ko cinq villes yi njiitu réew mi Macky Sall lu bëgg ak lu mu bañ waaye itamit lu muy xaar ci élection locale yéenekaay bi mi ngi ciy ñëwaat bay ñëwaat ci chiffre scrutin yi lu toll ci trois mille cent douze listes hors contentieux ak quinze mille zéro soixante six bureau de vote ngir 6,8 millions électeurs mu mel ni kañ coow li jeex na lu ci des bareetul ku bàyyi coow waxi dëggam mi ngi ci biir yéenikaay bi di enquête professeur bi di Mame Moussa Diagne daal dinay waxi dëggam ci biir yéenikaay bi nu mel keneen ku waxi dëggam mi ci biir yéenikaay bi di Le Quotidien mu ñuy xamal lu soxal yorub ndox mi fii ci diwaanu Sénégal Mignane Diouf nee na waa Suez dara indiwu leen fi lu du diw seen gafaka ñoom ñoo ñee jafe-jafe askan bi ci wàllum ndox soxalu leen rek mom mo len soxal mom moy naka la ñi def ba jaar ci kaw askan wi am xaalis boo xamante ni dees nañ kaa mën a seen gafaga mu melni ke ne nguur gi war nañ ci jël matuway matuwaay keneen ku jël matuwayam ci luñ jëm mom modi di Aliou Cissé mom momé ci coupe d'Afrique des nations bi mi ngi xam ne ne jamono ji kañ moral bi dal dinay bax lool waaye amna yenn jafé jafé yo xamanteni mi ngi galankor tañeer bi lu ci melni li di fièvre bi di coronavirus ka bi di su Populi di xey di jox ba kii di entraîneur des Lions Aliou Cissé ñu koy xaar ak compétition bi nga xam ni boo moyul dina tàng jër ndax feebar bi nga xam ni gane na lii di tañeeram bi dina ko gérem déet yéenekaay bi di l'observateur naan ñu polémique yi nga xam ni ñu ko doon am ñeel Aliou Cissé rawatina ci ñeent gardien yi nga xam te am nañ ko ak déclaration bi nga xam ni def na ko gannaaw premier galop bu gaynde yi fële sa diwaanu Bafoussam intérêt moom mooy mu indi fi ko li ko mooy rek day fori gineew maanaam ci gàttal tey mu mën a fecc mbaa mu dee mbaa tànk bi damm leneen lu damm ci diggante Mathio Ndiaye ak ki nga xam ni moom moo di jëkkëram ji du lenn lu dul sëy ba tas na maanaam ci gàttal ñoom ñooñee dootuñ jaarooti taal takk gu rëy gi fi amoon lune de miel bi ak koppar gu bari gi nga xamante ni dugaloon nañ ko ci ba ci ñu bari sax mu jee leen ñi yéenikaay bi di l'exclusif daal di leen xëyee ki tey naan ñu mbaa cook bàññes moom sëy wa daal dinay jeex dara desatu fa lu dul pënd bi pënd amul wante ay kurpañ moo fa am moom moo di ca diwaanu ndakaaru ci biir yéenikaay bi di l'observateur mu naa ñu ci tribunal bu ndakaaru chauffeur bi dafa dawalal ki nga xam te ni moom moo di patron ba mujjee kaa takk def ko ñaareeli soxnaam noonee rek awo bi di ka kaasa waral ba mu koy ngawti ngawtee moom chauffeur bi jàpp aawo bi ndulli ko bam nooy nepp waral bam teg ci moom ay gaañu gaañu yu bari keneen ku naroon faat mu jëlee ci ay gaañu gaañu yu métti mi ngi dëkk fële sa diwaanu Louga yéenikaay bi di l'observateur di ñu xamal ba tey benn apprenti tailleur moom moo daal di jam lu toll ci fukki jam-jamu paaka kii di xaritu rivalam bi lu ko wundu du lenn lu dul ñoom ñaar dañ doon xëccoo ki gel xarit ba ñëw di jàppale ka ca des apprenti bi gis boppam waral ba mu doxalee jëf ji nu mel mu ngoog kaay leen liggéey ngeen di gélantu ba ci jamante duma ci wax benn yoon Ndeye Marie tëjal juma mubarak